ci laa ne ko fa nga ma jëlee woon fa la sama waajur nekk daañu àgg ba ca moom nga wax ko di ko da maa jaawale li li nga ma def moom fekke na ko bu ñu fa jugee dem ci sama kilifa sëñ Moussa Nawel nga wax ko li nga ma def wax ko ni da maa jaawale bi ma ko ko waxee oto automatiquement dafa jug ni nañ dem sëñ Cheikh Abdou Latif ni ko toogal ñu xaar commissaire sar ndax nee na mi ngi ñëw loolu commissaire Sarr boobu ak séegul nga xam ne toogaat nañ fa cinq minutes yoo xam ne waxuñu di xaar commissaire Sarr man ak sëñ Cheikh Abdou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 ak sëñ Moussa doomi sëñ Moussa ak sëñ Moustapha sama rak sëñ musaa Nawel moo ubbi jataay ba lan la wax dane commissaire commissaire lan lan nan la mbir demee lu xew xamagul li xew commissaire wax ko lii mu wax sama waajur ni ko man kat maa jaawale kër Basiiru Mbàkke ak kër Basiiru Touré maa jaawale jëmmi Basiiru Touré ak Basiiru ba def samay élément def lii ñu def loolu nag ëpp na te noo ngi koy jéggulu sëñ musaa ni ko kon da koo jaawale mu ne ko waaw mu ne ko kon da ngeen kon yéen a ko tooñ yéen a ko tooñ la sëñ Moussa kon yéen a ko tooñ commissaire fay ni waaw sëñ Moussa ni jëf jii de rëy na fi noonu lool comme dangeen a wax ni dangeen koo tooñ ñi jëf-jëf jii non maa ngi sàkku ngeen def ci ñoom yar bu tollu ak jëf ji ñu ñu jëf wax fi ko mbir mi toll daldi ne